maîtriser ko bu baax nga soog a si wax. mais boo ko bëggee maîtriser bee di xoole. oui y a des choses qu'on dit peut-être nit ci wax. PIB 7 pour cent am na yoo xam ne mission FMI bi fi ñëw semaine bi rapport bi ñu bind moom lañ def da koy kon juum amu foofu. da koy da nga koy da nga koy maîtriser ba pare. ma ne PIB 7 pour cent bi mm. mission bi FMI def semaine bi Sénégal moom la ñu def si rapport bi yow kon yaa xamul li ngay wax. déedéet non non mais kon moo xamul li muy wax. xam nga dafa am yu nga xam ni. il faut nga maîtriser que su koy wax. c'est mm. extrêmement important. Mm. stratégie de mobilisation des ressources jëw naa ci. du dañuy jël rek euh, les impôts c'est clair net et précis. Mm. bon déclaration d'intention oui mais bala ngay def dara il faut mu am déclaration d'intention boo amul intention nan ngay defee dara. da am le bon vouloir de de de ceci bu ma waree dem Dakar damay xalaat ni man dama war dem Dakar d'abord. Mm-hmm. wax ko su kaa def Dakar non attends dama la déglu ba nga pare dama la déglu ba nga pare projet bi dinaa ci ñëw da nga may déglu yow da nga am amuloo projet fi nga bokk amul projet am ma bokk da nga may déglu mais waxoo loolu de ñun ñoo la wax déclaration d'intention mais yow waxoo déclaration d'intention oui ah. te moi qui parle. allez-y dama intention fu mu amul dara du réaliser dañuy loolu parce ñuy déglu. fu amul intention kenn du ko liggéey. mënoo ñëw toog boo bëggee dem Dakar da ngay am intention dem Dakar d'abord. bien sûr nag foog nga déglu ma. bàyyi leen seen ma non yow yaa arrogant yow mi ma attaqué. bi ngay wax dama lay déglu. baax na demal. je pouvais arrêter li ngay wax yëpp d'accord ma ci. daal ci nit ñi naan nit ñi dañ intention vraiment c'est du n'importe Jules merci on terminer allez-y. allez-y euh, livre de vingt pages. vraiment les gens ne savent pas résumer. quelqu'un l'a dit dañ ko tënk cest à au fond li nga wax lii yëpp mi ngi ci biir programme bi mais est-ce qu'on peut exposer tout ça c'est pas possible c'est quatre axes et 26 objectifs hein le ministre di génn comme Serigne Gueye Diop état général de l'industrie mhm. wax ca dugg ca xuus ca wax ca la mu ca a wax pàcc bu nekk secteur bu nekk ak ministre dañuy dugg wax mais du du moo tax ñu jël seen. moi j' arrête wax ñu mënuñ ci woote. Ah, non non non non moi je vais pas accepter. non s'il vous plaît Jules. moo xam ñu jëlee ba mel Ndoumbelane la. duñu duñu discuter waaw oui oui mais tu la laisses terminer. dama la déglu waaw je t'ai écouté. je t'ai écouté. bàyyi ko mu ñëw bàyyi ko mu ñëw. allez-y foog nga déglu allez-y. xam naa ne résumé la. allez xam la. nee naa tu vas souffrir tu vas souffrir tu prends loolu mooy problème bi. Mm. loolu la ñu xamul. Mm. da ngay wax li nga wax. après ku nekk jël pàcc bi mu euh, jël def état généraux wax. la ca war a nekk dugg les questions ñu posé ko. Mm. comme Aliou Sow li mu def. les gens vont répondre mais mënuñu ñëw lépp lépp lépp ñu wax ko c'est pas possible dafa mel na ñi koy wax sax dafa mel na jànguñu école. il faut que les choses soient claires. quand même. loolu je suis pas d'accord euh, vingt pages yi vraiment dañ ko résumé c'est très bien fait entreprise hmm. financer entreprise bi tu économiste hmm. il y a pas des entreprises qui ont commencé à zéro franc hmm. quand on parle d'entreprise il parle d'argent mais c'est ça qui a fait échouer loolu moo tax entreprise yi war a échouer ñoom dañ yaakaar ni entreprise moom financement rek la entreprise dafa am ay volets yu bëri dafa am un modèle économique clair avec les neuf blocs nga xam ne entreprise bi day dox combien d'entreprises laa fi gis actuellement ñu am ay problème parce que amuñu modèle économique l'entreprise peut être créée à partir de zéro franc Malick Diallo maa ngi lay nuyu les gens parlent parlent parlent te xamuñu li ñuy wax sa aussi c'est un problème les entreprises là il faut que ñu am modèle économique bu clair teg nañu ay institution yu nga xam ne dañu leen war a jàppale 3FPT mhm. nga fi ñeneen a ngi fi ñu ngi jéem a def la ñu war a def pour entreprise yi dox mhm. fonds yi ñëpp vous avez Mhm. faut ngeen bàyyi parce que j'ai noté beaucoup de choses. mais très rapidement. là non leen bàyyi ñu wax bu baax. Mhm. <laughs> grand théâtre waaw wax dëgg yàlla dafa am ñu ko moom ñu fa mën a dem waaye ku mën a dem grand théâtre yow yaay dem grand théâtre mais ku mënul feesal grand théâtre nooy demee grand théâtre mhm. arena ku fa mënul dem am na dem leen arena mais est-ce que le contexte non ñii wax naan dem dañ ko mënul Mm. mais affaire bi concurrence. il y a plan politique non non non non. attendez attendez oui Aliou mu pare. non dama ne concurrence. non mais question concurrence il faut que les gens aussi. du question concurrence on nous a lancé dama koy wax. foofu ku fa mën am ay militants yu fa nekk moo fay dem. Mm-hmm. ku fa amul militant yu mën a feesal salle bi mais looy wuti foofu kon kay foog nga critiquer ñi fay dem. Eh. mais dinañ fa dem alhamdulilah rabbil alamin loolu moom dina am <laughs> waaw. Eh. euh, mobiliser des fonds. Ouais. Mais c'est normal, dans un pays qui se respecte, les gens prenaient l'argent du contribuable. Mm. di ko utiliser. Mm-hmm. ñun dañu ni du ñu jël dërëm ci keesu nguur gi. donc c'est un modèle pour vous modèle bu baax la. dañuy mobiliser mobiliser des fonds ce sont les Sénégalais dañu gëm. Mm-hmm. gëm projet bi. malgré ñi ciy wax ñëpp naan projet projet projet. mais ñi koy gëm nañu projet bi mais ñi koy critiquer doguma la biram contexte bi moo tax ñu koy euh, critiquer au moment où dans le la situation. est attention on mobilise des fonds pour un parti on ne mobilise pas. Hmm. pour le pays dañuy mobiliser pour un parti pour une campagne électorale c'est normal ñoom ñëpp ku ci population bi nanguloon nga def li ñu def. Hmm. mais population bi dañ leen nangulul. la question mooy est-ce que. loolu mooy problème bi non bàyyil ba après nga poser question. quoi bàyyil ba ma pare. contexte bi ban contexte le contexte je sais. mais contexte bi mooy euh, am na dinañ ci ñëw. waaw dinañ ci ñëw. loolu soxlawul buñ ci ñëwee ma wax ci. bien sûr waaw. <laughs> parce que man tribune bi ma nekk. oui dafa mel na tribune yi ma laa nekk fii mooy. Mm. bi fi Macky Sall nekkee. Mm. c'est-à-dire lépp li ñuy wax mais c'est le fruit du travail du défunt régime aujourd'hui li nga wax yëpp ñun dañ ciy dem. Mm. dañuy dem deux mille vingt cinq nga gis li ñu def. ñu dem deux vingt six nga gis li ñu def. évaluer ñu dem deux et cetera. évaluer mais mënuñu ñëw te wax nañ ko. Mm. c'est-à-dire on avance en évaluant. Mm. Mm. bilan d'étape yi dañ koy def pour mën a rectifier. pour mën a avancer am na ku ni c'est provisoire. lu sax ñu wax ko c'est un peu comme sa cest dire au fond ce n'est pas définitif am na loo xam ne mën nga ko rectifier. man dama koy delloo si ci jàngale rek. ça. boo dee jàngale classe. Hmm. mais le le programme la mais mën nga dem ba gis ni lii sa ne va pas nga dindi ko am leneen loo pour améliorer les choses mais loolu ñun moo tax ñun c'est provisoire. donc am na yu bari yu ma fi dégg yu nga xam ne boo xoolee. Hmm. vraiment. très bien euh, waaw daanaka ñu ñëw. nekkul nekkul lu dul ay ay wax. oui on les a laissé parler. Uh bon mais on vous a laissé parler. vous aussi xam nga ah. quand on dit. <laughs> une croissance de 10 pour cent. on mmh. va atteindre. les gens ont constaté que les chiffres du dëgg ñun li joxe dëgg la. Mmh. croissance quatre pour cent boo ko amee war na feeñ ci panier ménagère bi. Mmh. ñun croissance boobu la ñuy wax waxuñu croissance bu nga xam ne c'est extraverti. wax nga ko l'économie avec tous les gouvernements se sont succédés demeure extraverti. aujourd'hui nous voulons une croissance bu nga xam ni endogène bu nga xam ni véritablement ce sera senti par les populations. Hmm. boo amee 3 pour cent nday fàttali mi bu dee génn xam ni dëkk bi changé na mais mënoo ma wax 10 pour cent yu nga xam ni. feeñul fenn. très bien te na ni ay chiffres yu faux la loolu tax. Hmm. affaire FMI boobu nga. voilà voilà nga bëgg daanale foofu ñu avancer. FMI mun na ñëw jox la note bu bonne les gens peuvent mais. Hmm. économie noonu lay doxee aujourd'hui bu fekkoon ñun dañu toog ba si àgg FMI wala mission ñëw fi hmm? ñu découvrir ni ñun dañuy sàcc ci suuf di joxe ay chiffres yu bon hmm. mais loolu bu amoon musiba am mais bu fekkee ñun ñoo génn waxal suñu bopp d'accord notre Sénégal dina wàcc hmm. mais à l'avenir les gens vont tenir compte que ñi fi nekk ñu jub lañu et c'est un bien pour le Sénégal. Et parce que crédibilité Sénégal daf si jóg ci kaw. très bien alors te loolu ëllëg. mën nañu jox idée lu ëpp loolu yëpp. très bien nga xam ni dañ koy perte tey. merci Birame alors dañuy dem ci Djibril très rapidement di wax ci wàllu am na yoo noté xam naa bëgg nga ci revenir mais euh, jëlaale suma laaj également ci wàllu FMI FMI